bu ñu ko defee du dugg bu ñu ko voté mu di Ousmane Sonko est-ce que mettre l'opposition dans une situation inconfortable boo xam ne tey peut-être seen ak euh, xaajaloo sax mën na cee xaj bu fekkente ne ku nekk bëgg ngaa bokk ci élection yi te ñii bu ñu voté euh, seen candidat du dugg ñii bu ñu voté seen candidat boo moytuwul aussi du bokk ci élection yi. Euh, man dama seetlu ne démarche su pouvoir bi amul pratiquement benn cohérence mhm. déjà président Macky Sall. su taxawee ci discours 3 avril am bi mu ne du présenté wu mais pourtant lois bi permetre na ko ko léegi mu ñëw loo xamante ne ni loi bi permettre ko ko maanaam mooy tas assemblée nationale saa ko soobee muy fexe nu mu amee possibilité def loolu nga xamante ni loi bi may ko ko maanaam fexe ba ñu voté ab loi dans ce sens ma ne c'est contradictoire mm. leneen li nga xamante ni également c'est contradictoire mooy que Euh, bu nekkee ne ñoom loi boobu dañ koy tëgg boole ci max ne du am possibilité présenté wu dans ce cas de figure mun nañu jàpp ne que ne euh, euh, contrairement à ce que euh, le professeur Ismaïla Madior Fall disait ñoom nekkuñu dans l'intention d'arrêter Ousmane Sonko. ko mm-hmm. parce que bu dee dañu koy arrêter contumace boobu mënatul am sens ba fiy xaar période ba nga xamante ne ni. moom dina soxlaa inscrire ci liste yi bañ koy tuddee contumax te même bu dul loolu sax est-ce que maître loi bi mën na rétroactive ba concerné Ousmane Sonko mi nga xamante nii ñoom la premier juin lañ ko jugé considéré ko comme un contumace ci loi boo xamante ni voté guñu ko mu ngi toog di xaar est-ce que mën na appliqué wu ci kooku loolu tamit c'est une question boo xamante ni dama gis ne manque de cohérence la ci seen dialogue xam nga lii yëpp li ñu ko yóbbee may les acteurs politique surtout ñi féete ci nguur gi ñoom dañoo jàppee ab jeu quoi xaw ma jeu d'échec lañ ko tuddee xaw ma wu lan lañ ko tuddee mais ñoom ci loolu la ñu nekk malheureusement jeu bi ñu nekk bu nekkee ne da ngay déplacer du doon ab pion kese ngay déplacer boo déplacer ab juge nga déplacé mu jël décision boo xamante nii mun na am ay implication yu garaaw xam nga pion moom mun nga koo xëcc indiwaat y a aucun problème bu jeu bi tasee nga lem sax bu la neexee dugal si mbuus alors que ñoom jeu bi ñuy def magistrat ngay pousse mu jël une décision assemblée nationale ngay pousse mu jël une décision boo xamante ni kenn xamul yan impact la mun a am ci société bi. Hmm. le premier euh, juin passé. Ouais. ab juge taxaw na fi condamné nit dëkk bi pendant quarante huit heures muy tàkk. Hmm. donc bu nekkee ne yow da jàpp ne. Euh, comme euh, nu ñu koy waxee politique moom affaire de stratégie la affaire de comme nu mu ko waxee moom sax waxoon na ne bàyyi na affaire de njuuj njaaj ñu jàpp ne politique bi moom affaire de naxante la damay jéem a xool su ma leen sexalee lii ñu yuuxu ma génne ko mën a am possibilité dugal bële ñu hmm. nekk ci loolu pendant combien de temps parce que li maître Tine wax sànq maanaam euh, que tey jii nii lépp lépp loo xamante ni pouvoir bi mu ngi ci mooy comment faire pour que ñaari candidat revenir dans la course boo seetloo pratiquement le tout le premier mandat du président Macky Sall da koo euh, comment dire da koo passé à voir comment la ñuy def ba ñaar ñooñu du ñu nekk candidat en 2019 mmh. premier mandat bi yëpp ci loolu la maa ngi koy wax CREI yi mai 2019 euh, 2012 plutôt ouais. la ko le président Macky Sall ressuscité 2012 boobu jusqu'à 2015 bi ñuy gracier Karim Wade pendant pratiquement trois ans Sénégal indil Karim bàyyil Karim 32 biens Malaki la ñu nekkee suba ba ngoon jot. bu loolu jàllee 2016 la ñu def référendum bi ñu yaakaar ne sax au moins cette fois si moom puisque le président. taxaw na def campagne électorale ne référendum bii bu jàllee il ne sera plus question ñuy woote waat affaire de euh, ñuy xeexaat fii pour affaire de troisième mandat ou pas. 2016 mm-hmm. boobu ñu permettre woon ñu am. ñu def référendum boobu ba yaakaar ne tënk nañ constitution bi Macky Sall nañu li ma leen doon wax sa campagne boobu kat nangam sangam affaire yu demee noonu gars yi duñu ñu fi théoriser ay deuxième quinquennat mhm. mais deux 2016 boobu ba nga ci jógee 2017 ba 2019 le régime ci xalifa Sall la nekk pratiquement ak Ousmane Sonko. Mhm. léegi nag bu ñu jëlee pendant sept ans ñu nekk ko ci ñetti dossier daanaka. Karim Wade Khalifa Sall Sonko. ba euh, euh, deux mille dix neuf bi passé ba deux mille dix neuf bi passé ñu fasa falaat ko léegi mu ngi xool élection bii di ñëw nan lay def ba effacer loolu nga xamante ni yëpp def na ko durant son premier mandat. maintenant la ju la la justice devient non seulement euh, euh, euh ridicule puisque ñoom ñoo fi jël ay décision topp ay doomu aadama def seeni i enquête ba ne ñii tëj nañ leen lii. tëj boobu dina leen tere ñu bokk ay élection ñoom ñu waxtaan ci seen biir ne juge yi wax nañu lii justice wax nañu lii mais puisque ñun waxtaan nañu ba déggoo nañu jël li justice waxoon bind ko dugal ci poubelle na la ñun léegi ñu xool nan la ñuy defarantoo ba ngeen mën a nekkaat candidat mais loolu au nom de quoi parce que ñi demoon si dialogue boobu il ne représente pas du tout le peuple sénégalais bi nga xamante ne nii c'est à son que la ñuy appliquer la ñuy jël les décisions de justice. mais nar na jafe ci député yi bu fekkente ne bu fekkee buñ buñ ko envoyé waatee euh, projet de loi bi euh, ngir seconde lecture wala peut-être ñu amandé ko pour ay ñu modifié waat koog yooyu noonu. Mm-hmm. temps bi mën na gudd six mois à six mois des élections mënuñu laalaat dara ci processus électoral bi benn beneen bi mooy euh, candidat yi bu seeni député voté wee mën nañoo bokk ci élection yi candidat yi bu seeni député voté wee aussi ñoom bokk ci élection donc finalement ban taxawaay la député yi nar a am peut bu fekkente ne xëy na moom la ñuy étudier cette ce projet de loi. xam nga dañu dañuy am tendance di naan élection yi c'est dans sept mois. Ouais. élection présidentielle deux mille dix neuf. Mhm. collecte parrainage yi ça a démarré le vingt sept euh, mhm. août. deux mille dix huit. oui vingt sept août deux mille la commencé maanaam dans un mois nous serons. Dans pratiquement dans dans l'autre élection présidentielle maanaam leneen xajaatu fi donc moo tax quelque part on voit mal naka un président sortant. Mhm. boo xamante ni dans. presque un mois la ñuy entamé Euh, comment dire de de de de nouveau processus boo xamante ni mooy mooy tax yow nga quitté nga ñuy proposer des réformes yoo xamante ni mais c'est extraordinaire. Mmh. Pape Matar réforme yi est-ce que du maître député yi quand même doo à nga xam ne ñoo fare même ci bi entre groupe parlementaire wala même entre parti parce que même biir Yewwi Askan Wi groupe parlementaire bi député ya fa nekk euh, ñii seen leader du bokk ñii seen leader mën na mën na bokk bu fekkente ne xëy na changé ñu dara ci loi yi changé seen leader du bokk ñii buñ ko changé wul seen leader du bokk moom moom itam ci élection est-ce que finalement du ay jafe-jafe yoo xam ne euh, vendredi bu fekkente ne moom lañ koy càmbar parce que jeudi bi lañ bindagul mais vendredi euh, xëy na ci la yóbbu code électoral bi euh, est-ce ci la ci yëpp jógee ah ba ñu ne dañuy dem dialogue am ci opposition ñu ne dañuy dem parce que nañu bokk rek c'est le problème yi commencé maître mi ngi wax lu am solo te lu dangereux. nee na moom élection dafa mas a bokk en ci ay dialogue donc de dialogue dafa dem pour bokkee ci euh, ci euh, euh, bokk élection élection du ay dialogue cest à droit la hmm. gis nga mbir yi lu mu doon dañuy respecter loi ñun ñëpp ñuy ànd ci parce que dañu nekk ci état de droit nekkuñ ci état boo xamante ne situation bu ñëw dañu ñëw taxaw positionné comme ay situationniste ñun nañ def dialogue xool situation bi danañ siy génnee dafa am loi yoo xamante ni moo ñu tënk organiser ñu ñuy jël suñu xaalis di ko dagg di ko jox état bi pour muy wéy ci organisation boobu loo xamante ni da ngay xëy suba nii nii nii rek nga ni da ngay da ngay da da ngay da ngay ngay da ngay da ngay da ngay ngay xalaat ay mbir gis nga euh, li may wax sànq man maître wax na lu am solo te loo xamante ni lu dangereux la mooy que ak Macky Sall euh, quand même dañuy habitué ay loi yoo xamante ni loi yu particulière lañ maanaam ay loi yoo xamante ne ay cas yu particulier nañuy ñëw di régler xalifa Sall bi ñuy wax ak l bi dañ ko indi woon ak Karim Wade dañ leen indi woon juste pour éliminer seen i candidature ñoom politique bu ñu defee loolu mais conseil constitutionnel war a bañ parce que la loi moom wax na ko léegi am na l'esprit am na la lettre mhm. bu nekkee lettre bi nee nañu loi bi dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko bind noonu parce que jàpp nañu ni que nit ñi dañ ko soxla mais esprit bu ne ci ginnaaw loi bi ñëpp xamoon nañu ni c'était pour éliminer Karim Wade ak Khalifa Sall léegi bu ñu ñëwaatee nag ba indiwaat beneen loi boo xamante ni dafa ñëwaat pour régler waat beneen problème bu particulier te problème boobu ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko war a ko ñoom ñoo mais conseil constitutionnel ci boppam dafa war a dafa war a boobu les lois parce que loi boobu noonu nga xamante ni yow yaa toog nga wax ni esprit loi bi mooy fexe ba ñu bokkul woon bokk wax na ko léegi la loi elle est impersonnelle et hmm. léegi loolu di ay précédent ëllëg kii président ci biir réew mën na ni ku sant Diallo mënoo doon président de la République. ñu taaye loi bi sur mesure. mais moom la ñu nekk di def mën nañ ni boo ñuulul boo liiwul boo liiw mënoo doon président de la République teg ko ci ay mbir yoo xamante ni yu subjectif la donc je crois que vraiment euh, président Macky Sall li muy def malheureusement nag amuñu ay députés yoo xamante ni ils sont assez responsables bu ñu nekkoon ñu responsable candidature yi ñuy jël di naan dañu koy accepté duñ ko accepter kenn du jaar ci ñoom pour éliminer ay nit. mais ci assemblée boobu nañ jaaroon pour éliminer Karim ni ko doo électeur parce que pour nga mën a euh, doon président daal il faut nga doon électeur tey jii ñi nga nar a jaaraat ci biir euh, ci boobu la assemblée pour ni Ousmane Sonko doo doon doo doon li nga xamante ni moom mooy mooy candidat mais dafa am loo xamante ni wax naa ko sànq mm. dañu nekk ci démocratie te démocratie la souveraineté appartient au peuple bien que dañu nekk ci démocratie représentative askan bi am na sañ-sañ comme 23 juin bii passé ba ñu gisee que ni ñi ngi nekk di li nga xamante ne mooy seen constitution génn taxaw ni lii du fi amee président bi ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne jot na am ci histoire bu Sénégal. Mhm. bu ñu demee ba gis ni am na ay loi yoo xamante dañ koo teg juste pour naxsal euh, ay nit wala euh, indi ay pexe comme ni ko Abdou Aziz Diop waxee mais askan boobu am nañu sañ-sañ ne kat souveraineté bi ñun ñoo ko moom. Mhm. te le peuple a toujours raison. pour exercer ko euh,